ñeenteelu xaaj bi ci juróom xaaj yi njiiti yawut yi ne yeesu dafay xiir nit ñi ci jàllar bi nguuru waaye pilaat moom mënuloo woon gis genn tooñ gu yeesu def mu bëggoon ko wàcc mu dem waaye yawut yi bañ gannaaw loolu xarekat yi dóor yéesu ay yar ñu summi ay yéreem solal ko mbubb mu xonq ñu solal ko kaalak dég ñu koy dóor di ko tufli ak di ko mbéj noonu pilaat waxaat leen ne gisul genn tooñ gu yeesu def waaye yawut yi yuuxu naan nañu daaj yéesu ci noonu pilaat jël ndox raxas ay loxoom ci kanamu nit ñi mu ne leen moom set na ci deretu yéesu yawut yi tontu ko na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot léegi ma laaj leen juróom ñaar bi yawut yi demee ci pilaat lan lañu jiiñ yeesu dañu ko jiiñ ne mu ngi xiir nit ñi ñu dégg dil nguur gi juróom ñett lan lañu def yéesu laata ñu koy daaj ci bant solal nañu ko mbubb mu xonq cur solal nañu ko kaala dég dóor nañu ko ay yar mbéj nañu ko tefli nañu ko